monsieur le maire Ibrahima jiitee ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. maa ngi lay fay. ngay meeru euh, Didougou Didougou nekk ci Sédhiou région Sédhiou donc ngeen bokk ci APR euh, tey ji euh, ñuy waajal li nga xam ne moom mooy élection locale yi li ci des yàggatul jamono ji ñu bëggoon a xam foofu ci commune Didougou lan mooy enjeu yi tey. waaw merci beaucoup ginnaaw bi ma la euh, nuyoo ma rafetlu sa sa woote bi ci émission bi. Mm-hmm. Euh, dama yaakaar ne vraiment réew mi réew mi FM bokk ci rajo yi nekk fii di di tasaare xibaar yi di di intéressé wu tamit collectivité yi. Mm-hmm. fu mu fu ñu mën nekk. donc euh, tey jublu ci élection locale élection bu am solo parce que pour man parce que dafa war a nekk la deuxième génération euh, euh, de euh, de maire yi mhm. ñi war a conduire changement paradigme bi jëmale ci wàllu acte trois de la décentralisation mhm. am na ne bu ñuy càmbare ak trois de la décentralisation évaluation bi mhm. dafa am lu mu dafa am lu mu lu mu lu mu lu mu première chose bi mooy incohérence territoriale bi deuxièmement euh, renforcement bi euh, état bëgg a renforcer mhm. compétence yi mu jagleel euh, collectivité yi mhm. ñetteel bi tamit insuffisance bu am ci ci wàllu ressources humaines yi ñu war a jiite ñu war a accompagner les élus pour que communes yi gox bu ne mu mën a développer mhm. mais aussi li gën a am solo orientation bi état jël ci wàllu développement par les territoires yooyu yëpp mu koy basé ci budget programme dama yaakaar ne élection bi dafa war a nekk élection bu déterminant pour le développement l'émergence de nos territoires par conséquent si sama xalaat mhm. euh, euh, ñi ñu war a investir dañu war a xam loolu mhm. dañu war a am background dañu war a dañu war a am benn euh, benn possibilité ñu mhm. mën a conduire mission yooyu parce que c'est une mission c'est une mission de autant pour moi bii war a tax collectivité yi nekk ci sur la voie de l'émergence. mu mel ni da ngay artu di def benn clinté d'œil pour ñu maanaam nga fixer wala nga orienté un peu ci choix yi euh, ndax dafa am ay jafe-jafe foofu ca ji dugg ci tànn gi. oui parce que comme communes yi yëpp xale yi ndaw yi dañu bëgg a nekk maire. Mhm. foo jaar ñu ne la man candidat la mën na nekk si suñu coalition wala yeneen coalition wala yeneen parti. Mhm. c'est se c'est légitime ku nekk mën na nekk candidat ku nekk mën na am sañ-sañ bëgg a diriger sa collectivité territoriale sa mm-hmm. commune mm-hmm. mais li am solo mais bala ngay ne man bëgg naa diriger da nga war a am background bi lay permettre ëllëg bu ñu la falee mm-hmm. nga mën a nekk en mesure de apporter changement surtout nga mën a xam o minimum orientation politique publique yi ne li ñu war a li li nekk li am li am Mm-hmm. parce que boo demee ci collectivité territoriale yi fu actuellement wax naa la ne insuffisance personnel am na fa mm-hmm. en plus de ça bu dee maire bi nekk na koo xamante ne xamul dara ci orientation politique mm-hmm. wala jàngul xamul dara dafay métti parce que dafay métti parce que du du xam lu muy def alors loolu dina tax localité au lieu mu développé day dellu ginnaaw loolu problème la donc choix yi population war a def man dama yaakaar dafa war a nekk benn choix bu am am solo. Mhm. buy permettre suñu population ëllëg bu maire bu ñu war a fal bu nekk maire buy répondre à l'aspiration bu ñu bu ñu mën a ne ah diw daal fal nañ ko vraiment c'est un maire qui. peut diriger les destinées de cette localité pendant les cinq ans à kon bu ma la déggee ngay wax jamono ji yéen a ngi déglu Macky Sall gannaaw nag uh, ku ci nekk samp ndëndëm yéen a ngi xaar mu defaraat toogaay. waaw waaw a ñun ñun comme ñu ngi ci benn parti politique. Hmm. te kuy ne parti politique dafa am discipline de parti. Hmm. donte ku nekk am na uh, sañ-sañ ne mën dama bëgg a nekk candidat. Hmm. mais au terme buñ la nee. li ñu xool li buñ seet nañ ba pare xool nañ xam nañ ne yow donte bëgg nga nekk candidat donte am nga yenn base mais am nga parti bu ne dafa bëgg a gagné. Mhm. dañu dañuy dañuy xool seen dossier xam nañ ne kii diw buñ ko investir moo gën ci population yi et moo gën tamit ci réew mi moo gën ci parti ba. Mhm. bu ñu xasee ba jël kooku je pense que ñëpp ñu waraan ñu bëggoon nekk candidat. Mhm. dañuy manko n'est-ce euh, kooku jàppale ko pour mu mën a nekk euh, euh, maire ci gox ba c'est le cas chez nous dama man dama yaakaar ne bon commune foo mu commune boo mënta dem am na am naay candidat mhm. mais je sais que un maire sortant quand même li xaar ci moom mooy au terme des élections au terme de son mandat mhm. mu defal mu defal bilan mhm. bilan mënul weesu ci élection. d'accord te meilleur cadre pour nga def bilan mooy ci biir élection bi. dañu yaakaar ne au au au au au au juste le président de notre parti il va penser peut-être que à au moins à faire face au maire à leur propre bilan ñi mën a ne lii lañ def lii lañu deful li tax defuñu ko lii lañ def wala ñu mayee lii lañu war a donc je pense que c'est le meilleur cadre pour nous. que le président euh, accepte notre candidature à la candidature pour la mairie de Diouroup. d'accord euh, tey jii ñu gis ndaw yi yow déjà élu bu bokk ci ndaw yi nga euh, nga gis ne ndaw yi comme ni nga ko waxee tout à l'heure ñoo ngi ñeme euh, lii di maanaam investir dem uti seen gox laaj li nga xam ne mooy seen baat ak seen kàddu tey nan nga gisee justement jeunes yi le fait que ñu daal di bëri tey ci ñi nga xam ne ñooy candidat yi seet maanaam yi ut wut euh, élection yiy def élection gox-goxaan yi. man li ma rafetlu la parce que pour man euh, euh, alternance générationnelle mi kenn kenn du ko mun a baare. Mhm. alternance génération mi ça même de l'avenir du pays. Mhm. parce que ñi fi nekk depuis indépendance boo xoolee y a des maires mun nga leen compter sax ils ont fait deux ou trois mandats. d'accord xale yi jàng nañ macha allah dem nañ école. Mhm. xale yi am nañ xam-xam mhm. xale yi ñu ngi am responsabilité feneen donc dañ leen war a jox confiance n'est-ce pas mhm. ñëw postuler wu pour mun a andi seen mën-mën dans les collectivités territoriales cependant mhm. euh, si li ma wax rek mais euh, euh, ambition warul tuer n'est-ce pas la la légitimité waru ah, l'ambition warul tuer n'est-ce pas les l'unité l'ambition tamit warul warul warul warul nax warul nax na saxal tamit euh, euh, euh, li ñuy wax li war a nekk hmm. parce que ñëpp mënuñu nekk maire lépp ñëpp mënuñu nekk maire il faut hmm. ñu am faaw ñu am ñiy jàppale ñeneen ñi hmm. ñu teg ci lu wóor ñoo xamante ne vraiment am nañ background am nañ xam-xam xam nañ orientation politique publique et puis au moins yàlla daf leen am daf leen di may yeneen xarañte bu leen permettre ñu mën a yóbbu seen gox seen localité ci kanam. d'accord ñu ci leneen justement ci localité yi ngay meeru Dioudoubou comme niñ koy waxtaanee sànq ba tey ñu bëggoon a xam jafe-jafe diwaan googule. jafe-jafe diwaan bu Dioudoubou moom mooy infrastructure yi la rek comme li ma ko waxe mhm. ci français premier il faut que l'État euh, mu dem ci collectivité yi parce que. Euh, option bu mu jël di def commune yi yëpp commune mhm. option bu baax la mais retard yi communes jël en terme d'infrastructure loolu état war résoudre moo ko war a euh, saafara mhm. il faut que état mu jël euh, ndogal bi permettre dans le cadre de budget programme mhm. muy jël ndogal buy permettre commune yi am infrastructure minimum de base. Mhm. waroo dem ci benn commune ñu ne la fii amul poste de santé xam nga loolu loolu c'est pas possible. Mhm. waroo dem benn commune ñu ne la fii commune bi amuñu garage amuñu marché nga dem commune ñu ne la xale bu ñu jàngee huit kilomètres la ñuy def yooyu c'est des questions qui qui relèvent même. de de de la de du devoir régalien de l'État. xanaa da nga ne euh, communes yi tolloolewuñu leen ci wàllum defar. maanaam dafa am dafa am ñi nga xam ne dañ leen gën a defar au profit euh, de yeneen yi mais bien sûr pendant depuis l'indépendance jusqu'en 2013 communes yi dañ dañu doon cotiser pour communes yu mag yi mhm. xam nga patente patente boo jëlee yeneen communes yi dañ leen yeneen bëgg gox yi ñu nekk ñu musul nekk commune ñu nekkoon communauté rural mhm. du ñu am patente yooyu yëpp je pense que euh, euh, régime yu succédé le président Macky Sall régime de la paire ñoom ñoo entretenir loolu. Hmm. comme par exemple dafa jël ndogal dafa am responsabilité mu ne jël naa ndogal toutes les communes seront communes à égale dignité. Hmm. je pense que retard bu communes yi euh, euh, euh, engrangé dans le passé dafa war a jël tamit obligation à travers les ministères. ñu hmm. saafara boobu retard bi permettre mu am équilibre entre les communes. parce que loolu discrimination positive man de su ma bu dee maay ministre bu dee président bi man man maa koy conseil ci loolu dafa war a dem directement mu xool communes yi infrastructure yi ci manqué mu defar infrastructure pour ñu mën a tolloo tuuti ak yeneen communes yi ci la compétition bi mën a am ci la développement par les territoires mën a am ci la balance comme ci la tamit euh, euh, le développement buñ koy xoolee la niveau de développement ci lañ ko mën a euh, euh, euh, vérifier parce que boo jëlee au niveau macro ñu ne la nous sommes nous sommes en en terme de de en terme de PIB mmh. nous sommes à six pour cent nous sommes à tel pour cent mais boo demee ci niveau dé désagré désagrégé nga dem dans les communes localité par localité di nga gis ne même zéro virgule zéro zéro pour cent amu fa ama yooyu c'est des situations yoo xamante ne seul l'option budget programme seule l'option le développement par les territoires loolu moo ko mën a régler et la carte est dans les mains du président de la République son excellence Macky Sall mm -hmm. avec son équipe son gouvernement avec tous ces gens qui sont nommés

ñu ngi ci wàllu marketing territorial hmm. ñun suñ commune yow mi sant jaata xam naa su ma la laaj ci juri fu mu nekk doog siñ ma ne xaw ma hmm. mais ñun premier bénéfice bi euh, jour bu maire bi génnee dafay jaay tour commune am hmm. loolu am nañ ci en terme de marketing mais tamit deuxièmement maire bu génnee day dem visite day observer dafay xool ci wàllu gouvernance lan la gis feneen Mm-hmm. ci wàllu ci wàllu économie ci wàllu taxe lan la gis feneen mm-hmm. yooyu looyu bénéfice la mais tamit bu ñuy génnee tamit euh, euh, ak luy ñuy yàlla denc ci tuuti ci xam-xam mm-hmm. dañuy jaay suñu réew dañu nekk ambassadeur ci réew réew Sénégal ci tugal ci ci ci ci Brésil mais ambassadeur de notre commune à au Brésil par rapport à lu ñu am donte tuuti na mais am nañ dañu am dafa am lu ñu am mais tamit am nañ possibilité daf ñu jox possibilité ñu am échange ñu am des des contours d'une coopération. Mhm. ñu xool ban possibilité lañ mën a def pour que suñu ñaar communes mu am jumelage au moins au moins pour que au moins si suñu ñaar communes tamit mën a am euh, échange culturel. Mhm. mais en termes d'appui aussi. parce que ba sama voyage euh, am na ay possibilité convention convention signature de convention. bii tax sama commune benn commune ci Brésil buy tudd commune Contagium hmm. une commune économiquement forte euh, pare na pour jàppale sama commune en termes de formation joxe bourse ci ndaw yi tamit pour ñu mën a dem jàng fa mais aussi euh, euh, transfert de compétences ci wàllu agriculture tant en matériel mais aussi dans le cadre de l'agronomie aussi yooyu yëpp am nañ ci possibilité ñu ci wax pour ñu kaatim ko benn benn document ñu signé ko dans les années à venir pour pouvoir faire des activités de développement dans ma commune. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie.